internetu Dakar Buzz nuyu naa leen bu baax a baax di leen dalal jàmm ci Buzz la semaine ni ñu koy defee samedi bu jot lépp lu nga xam ne nii rek xibaar la ruus si semaine bi gën fee fës daañu dañu koy door rek coow wala njublang gi nga xamante ni rek jamono ji am na ci biir réew mi ñeel trafic de visa ak passeport diplomatique yi ñu fi coy lépp nag tàmbalee ca signalement service ya nekk biti réew tax njiita réew mi Macky Sall jébbale ngay saytu nga nekk sa bopp bàyyi ndombal tànk la ñu wàkkit ñu askan wi di euh, jox nopp niki noonu la sàpp l'enquête ubbeekoo waraloon ñu soppi passeport diplomatique yi si diggante bi boobaak léegi nag division des investigations criminelles tegiwu sa ay tànkam bokk na sa ñu njëkk a fësal sa l'enquête ba landing bi saan sekk mi ñu gën a xam ci kilifa bu kër gi gannaaw ba ñu ko fekkee këram yóbbu ko yóbbul ko convocation mu wuy ji ca kanamu l'enquêteur ya àdduna sa ñaari ya mu jotoon a jël di xamle ni dañu ko filmé si lu mu yëgul te doo doon dimbali dong benn xaritam bu doomam feebaroon lu ñeel visa ba nag ku ñuy wax Jérémy di benn xaritam bu nekk ambassade bu France la sa yaakaaroon yooyu la ñaari million moo di woon neexalam bu yëf ya ant bu yëf ya anto waaye dafa mujj delloo benn baak xaaj ndax la kayit ba yéex a agsi la gënoon a ñor l'enquêteur ya nag mooy fa kilifa war a wutalee xaritam bi passeport diplomatique muy dugal la mu wax sa vidéo ba tey naan daa am si ku ba mu di mbir mu tas tasara fu ne nit di fa bawoo di ci bokk ba ci taskatu xibaar bu jigéen bi euh, police nekk di wër jamono ji les échos di këkk ñu no di ñu xamal ni ba ñuy jàpp kilifa dañoo jàppale guinéen bi sant Condé te fasalu ñu turam moom mi leen moo doon defal fu passeport diplomatique député ya nekk Benno Bokk Yaakaar Amadou Thierno Diallo ma defoon euh, vidéo kilifa si wotoom déglu nañu ko muy euh, xamal enquêteur yi ne dafa yóbbu kilifa si yoon ngir escroquerie au visa muy lu takk si seen l'enquête seen diggante tàngoon lool ndax Mbisaan dafa xamle woon altine ni jot na ñaari millions yu mu delloo benn baag xaaj Thierno di ko weddi tey biral ñeenti millions ak téeméeri junni yu mu ko jox te delloowu ko ko Mbisaan delsiwaat di dëggal la Thierno wax tey xamle ni ñaari millions yenee xalam la woon la sa des woto la ñu ko waroon a jëndee Thierno dàkkaat loolu di wax ni kilifa yëngu ku yëngu woon la ci mbir mi ba ñëpp xam ko si te it du benn dëgg su waxee ni xaritam bu doomam feebar la doon taxawu la mu gis di opération bu kilifa tëraloon na mu ko yàgg a ambassade bu France mu mel ne daal mbir mi yombul dara ci kuréelu rappeur ya di seen bopp Y'en a marre gannaaw seen naataango bi di kilifa teg nañu loxo seen beneen naataango bi di Simon rappeur di ko toppee ñaari millions yu mu weccoowee passeport français ak Thierno Amadou Diallo si diir ba ñu koy dégloo ca division des investigations criminelles takk der yaa nga woon toppi tànk kii di Thiat di seen beneen naataango foofule ca kuréel ga ëmb Amalal Talla ñu gën ko xam ci Fou Malade daal dina yàddu ca coowal naataangoom yooyu ñu téye la ma sa wax moo di bu mbir mi amee na yoon def lay yoon ndax diggante ba ñu woo kilifa ak bi vidéo bi génnee am na diir police la ko taxoon jóg mooy xool lu kilifa sekk ak ñaari député yi waaye gisuñu sa dara la tax ñu tee fa kilifa ba tey bu sukkandikoo ca la leen avocat wam bi wax mbiru escroquerie la maanaam xaalis bu mu sekk ak ceer te ceer caat moo ko wan a lekk Simon ñuy demalante si lu caat yëgul ba mu sekk ak moom fiancéem ngir mu abal ko xaalis bi ñu dégloo caat ba noppi dañu ko bàyyi mu dem ñuy toppee Simon tentative de trafic de migrants moom daal li mu mën a jàpp mooy ne mbir mi jeexagul te yoon la bu ñu euh, bëgg a teg ngir euh, xool nu kilifa taxaweek yooyu la député ndax kilifa ba léegi kenn porté wu ko plainte te itam coowam moo jiitu bu député yi muy laaj lu tax woowuñu woon kilifa laata coowal député yi di euh, jip maître El Hadji Diouf itam woon na sa mbiru kilifa bi mu xam leen ni su ko saaga woon su ko saaga Ousmane sonk moo tax saa yu ñu tasee taseek moom ci plateau yi dañu koy xas di ko yàq lu nekk waaye yàlla dina leen àtteek moom te sénégalais yi xam nañu ko lank na nag ne du wax si uh, mbir ma lépp lu dal kilifa ak ñeneen ñi yàlla lay bàyyi mu àtte te képp ku fi rëy rëylu di jéem a sàkkal pexe ñeneen ñi yàlla ngi lay uh, gis a coowal politique la ñuy desendeek euh, coup d'état ba am ca Guinée Conakry Cheikh Yérim Seck àdduna sa gannaaw ba mu biralee ni mbir mi xuloo la tàmbalee diggante Dumbuya ak ku ñuy wax Diané nekk ko am doole lool ci nguuru Alpha Condé Yérim nee na Alpha Condé dafa meloon ni pa doxandeem ca réewu Conakry ndax du jabar du doom du it mbokk bu mu fa am loolee tax ba ñu koy jàpp moom rek la ñu fekk ca pale ba ka ñuy naan mooy première dame t tey wuyoo ci turu Diéné Kaba sekkul ak moom dara bokkuñu fa ñu dëkk gisante wuñu ndax du soxnaam Diéné ma nga am kër ca cité ministériel ba tàkkoon de moom dong dëkkoon bañu lu ko gàcceel ca kanamu yeneen njiital réew ya taxoon ñu uh, ni ko da ngay am jabar par force si la demee waxtaan ak jéene ngir mu koy mbuboo ci ay photo ki rencontre Cheikh Yérim xamal nañu itam ne Alpha benn doom la am ma nga dëkk ca San José Costa Rica heure buy ñëw nag foofule ca Guinée ab avion privé lay daal di loué daal di ñëw signé si ay document bu noppee jël la soxla sa xaalis uh, delluwaat ba tey muy wéy si ay euro muy lu mu gis ne daal lu bari Alpha Condé ak alal googu doo nga nekkoon ca pale ba Jeune Afrique dikk ak ñun si njiital réew moomu di Alpha Condé te ñuy xamal ni jamono ji ma nga sa benn antenne bu force spéciale ya féetee ca Kaloum benn kilomètre moo dox digganteem ak palais présidentiel moom Condé gisante nag pajkatam colonel Kaba ba mu saytu wér gu yaramam fi mu ne nii nag lànk na ba tëdd si suuf ne du signé lettre de démission ba ñu ko jox te it du lekk seen lekk ndax wóoluwu leen li muy lekk daal mooy li nga xamante ne nii rek toggukatam spécial moo ko koy jox CEDEAO doon amal lu ni mel la doon nëgëndiku ngir àddu sa mbir ma biral fa réewum Sénégal toll si la mu bind si page Twitter ma mi ngi si wax ni Sénégal ñaawlu na coup d'état bi am di topp si ndigalu sommet bi ngir lu aar réew ma jëmalaat yoon nguur ga nana Addo ma nekk jamono ji ca bopp CEDEAO boobu biral na ni charte way jëmal yoon dañu ko teggi ca réew ma Guinée di fàttali rek ne diggante Alpha Condé ak Macky Sall demeetul woonu noonu waxoon na bi léegi coup d'état ba woon juróomi fan ci weer wi ñu nekk njiita réew Guinée Bissau bi mi ngi xam ni mi ngi si ay tànk jàppale Alpha Condé donte seen diggante taxul woon mu neex moom Umaro nee na musul ànd ak petit te mi ngi def kem kàttanam ngir lu génne Alpha Condé fa mu nekk si ay kàddoom woyal na ni bëggante wuñu woon waaye li xew la ko métti image ya ñu tasare itam neexu ko mësuñu déggoo ci dara te rewul maamam la ba tax na moom Umaro bi mbir mi amee diggante nak Nanado mi nekk si bopp CEDEAO bi di naqarlu lu ni mel wa dëggalaat na fi mu féete donte ñu bari eh, ànduñu woon Alpha ku ci mel ni njiita réewu Sierra Leone ba terewul nag moom Umaro nee na Alpha dafa war a signer lettre de démission wam gannaaw seen ndaje ba CEDEAO dafa suspendre Guinée tey dellu di biral ñàkk àndam ci coup d'état ba dëgmaloon nañu mbooloo mu takk mu waroon a dem ca Guinée Conakry mu di ay jëwrin yu yeneen réew yu ñu dénk lu ñeel biti réew gannaaw waxtaan wa ñu ñu la défense de la république colonel Doumbouya Condé ba si rek ña sa ëpp baat ci nu ni mel nag la génn ak askan wa moom colonel Mamadou Doumbouya gannaaw bi tekk frontière yi dissolution constitution bi ak bu nguur gi bi mu noppee ci coup d'état ba mu def njiital réew Conakry ba Alpha Condé ba tey ci uh, coppite ga nga xamante ne ni rek amal na ko ci réew ma Conakry colonel Mamadi Doumbouya uh, xamle na ni ministre yooyu ñu tekki seeni i ndombal tànk te ñu yoroodoo nguur gi amu amuñu sañ-sañu génn réew mi uh, te ku si nekk na nga delloo woto bala nguur gi joxoon bu loolu weesoo couvre fa dootu fa amati te kenn du sonal kenn biral na itam métit ba nguur ga tekk askan wi yëpp ba tax na dinañu def seen kéem kattan delloo si xel askan week yaakaar wa ñu amoon. laata ndaje bu waxtaan wa mu woote woon soxla si ministre yu nguuru Alpha Condé yëpp moom colonel Mamadou Doumbouya dafa joxe woon ndigal ñu génne kaso politiciens yi ñu fa dugaloon yëpp niki noonu ga ëmb Front National pour la défense de la Constitution daal dinay woo askanu Conakry ca mobilisation ba ñuy amal si mbedd mi ngir teeru seen jàmbaar ya ñu tëjoon si lu ñu tegul fenn ku si mel ni Foninké Mengue Etienne Sorop gi Abdoulaye Ba ak képp ku ñu téye woon ca maison centrale ba taskatu wala coup d'état ba di xamal njiita réew africain yi nañu génn jaar ca yoon wa ndax bu ñu demee ba fal njiita réew tegeetul si cooba rek nit ki ak euh, urne ya jëfandikoo ay arme dafay daal di nekk lu mënula ñàkk ndax réew mu dëgër lu moo ëpp doole nguur bu autoritaire te pouvoir peuple bee ko war a dese fii nag si fii nag si Afrique urne amatu fi njariñ élection dafa ñàkk la ko fonde woon ci kanamu doxalinu njiit yi peuple bu ñu nax euh, war ko tas yaakaaram intégrité am réew mu leen di jaral seen bakkan way la seen liberté Mamadou Dione ma ngay sànni kàddu njiit yooyu muy wax ni dañu xiifu nguur naan leen buntu gàcce duñu leen ko mës a tëjal bi lekk bàyyiwuñu di toroxal seen askan muy laaj kañ la njiit yi di delloo si seen xel boo IBK ak Condé war na leen yee bu baax te bu ñu moytuwulee ñu teg gàcce seen bopp ba tax na ñaanuñu yàlla egg si ay arme li gën daal fekk si askan wi la nga xamante ne ni moom la ñu bëgg Serigne Modou Kara itam àdduna si coowal coup d'état ba di yónnee bataaxal Ousmane Sonko gannaaw ba mu àddoo ci xeex bi fi amoon di wax ni ña taxoon mu am yëpp dañu leen convoqué dong te ñi fi bëgg wutu wutu Macky yëpp ku fi def njaaxuma di nga koo rëccu muy wéy di laaj ana ñi mu fi defoon a taatu neen ba tax na Serigne bi nee na jërëjëfe Serigne Touba dong nga mën a soppi mbir yi. coowal couleur ak logo moo dox ci diggante njiit ya taxawal kuréelu kujje gi di yeewi askan wi talaata la ñu doon amal seen njëlbeeni waxtaan seen biir ca la ñu njëkk addu moo di membre ya fësalul woon seen signature doon xarab waxtaan ci couleur ya ñu toog tànnoon ak logo ba yooyu la symbole duñu ko soppi ndax gisuñu ci dara loolu la ñu sa wax ba tax na Bougane da koy neex mu dëgmal signature am neexu ko mu retiré ko bi ñu noppee ci loolu dañoo jublu ci organisation bi structuration ak fonctionnement wu gi si bépp euh, élection bu ñu jëm waxtaanee nañ nag lépp lu war a dox seen biir luy jëmale yoon kuréel gi fas nañu yéene taxawal kuréel gi si bépp commune ak département fii ci euh, Sénégal gannaaw loolu njiital kuréelu gëm sa bopp bi Bougane Gueye Dany dafa woote woonub conférence ngir àddu sa signature am sous réserve ba ñu dàq ca kuréelu kujje gi di euh, yeewi askan wi muy biral si njëlbeen ni gisee naak xalifa Sall ba ñu waxtaan ñu yónnee ko charte bi waaye coalition bi amul woon tur si la ko sante ca la mu kuréelu gëm sa bopp ca kuréelu kujje gi da koy wax ni dinañ ci ànd moom Bougane nag nee na nangu na lu nangu na ñàkk fayda ci luy dajale opposition bi waaye du nangu kenn ku ko déggate si li xew nag mooy seen bésu lancement ba ñaar fukki nit ak benn ñoo signé muy wax ni amul kenn ku toogoon signé ku xam nu coalition ba tudd ndax yónneewuñu la ko tey joxuñu sa kenn logo bi mu gis ko ba si couleur yi ànd ak loole ba mu génn ba mu duggee ci salle ba génnaat nag Khalifa Sall daf ko laaj lu xew mu ne ko lépp ñëpp mënees koo def lenn Barthélemy Diaz Malick Gakou Kalidou Niass ak docteur euh, Diallo la ko wax ni dinañu ko lijjanti si la ko xamalee ni bu delloo si salle ba it du jël parole te day signé sous réserve ndax àndul ca la ñuy def la ko bett nag mooy la ko xalifa ne Bougane signé sous réserve amul way laa nga signé nekk ci biir way laa signé wuloo moom Bougane nee na la ko yitteel mooy lépp lu ya daaneel nguuru Macky Sall jëlee fi benn bokk yaakaar jamono jii te ci lay xëy ci lay gontu ba tey dafa mujjoon gedd ba génn saal ba gannaaw caprice su njiital coalition gëm sa bopp ba di Bougane Gueye Dany moom Ousmane Sonko dafa bàyyi ba Bougane génn saal ba muy door a delsi si biir mbiru logo ak couleur ni ñu leen ko waxee la léegi moo dox seen diggante. ña koy tuumaal ne ndaw la bu Macky Sall yónni Bougane la say tontom mooy pion du génn kon bu loolu amoon du génn ca kuréelu Yewwi Askan Wi ama xam nañu fa wax ba jógee duñu ko biral nag fii nag Sénégal dañuy fen ba gëm seeni fen gëmuñu la ñuy wax waaye soxor moo leen jàpp ba tax na moom gentleman la kon euh, kon góor piir la am na yu nga xam ne du sa dugg lépp lu mu war a taxawee taxawee na ko deful waxul ñamu àndal defu ñu waxuñu lu tax ñu naan Bougane mi pion woo Macky Sall la Aïssatou Diop Fall ma ngay ànd ak Bougane Gueye Dany di ko jàppale gannaaw ba mu xamle ni Sénégal dafa bari kuréelu kujje yu dul antu te ñoom ñëpp kenn joxu si ci njiitu réew mi Macky Sall ndax nawloowuñu ko tax ñuy woowante seen biir euh, président moom mi fi nekk njiit ñu koy ñuy jaar ci turam waaye Macky du seen morom la xelam di naaj ci seen i yos yeggu fa képp ku fi taskatu xibaar wala leneen sonal Macky fexe na ba teg la si wetam si lu àndut ak coow Idrissa Seck firnde da si moom Aïssatou weddina la ñuy tuumaal Bougane naan caractère caractère mayu ko mu nekk tuubu toobu Macky Sall ndax nit ñemewu ko noonu yor na doole te loxo bi dafa gaaw ci euh, dóore waaye moom ay Aïssatou dàqul lu ni mel ndax nee na lu ko leer mooy ne Macky Sall bëri na ay topp ci euh, nguur gi Ahmed Aïdara itam a biral na digganteem ak Bougane Gueye Dany di wax ne contrat professionnel moo leen boole liggéey xëy wàcc bu weer deewee mu fay ko muy def bu dëngalamee kilifa ya jubbanti te dund na fa lu mel ne boo tardé euh, bind leetar boo absenté yi te ñu dagg sa salaire kon liggéey lool kon loolooy liggéey waaye lu jëm ci politique ku nekk ak gis-gisam muy wéyal naa na bokkul gëm sa bopp bañ na ko ba ba muy am kuréel euh, gëm sa bopp sampoogul woon ñëwaat na sa la merloo Bougane Gueye ba mu génn ca kuréelu kujje gi politique daal la ko ëmb yëpp bañ ba yegg si mukk bokk ca ndax booloo day bette parti wu ki fi nekkoon njiitu réewu Gambie di Yaya Jammeh biral nañ di beerin bi gi ñu weesu ne dañuy lëkkaloo ak parti ka toog sa nguur ga jamono ji si ñetti weer dong ñu leen dese ngir ñu amal seen élection ya ñu taxawal ñeenti fan ci weeru décembre xabaar wi doon na lu bette lool ba tere woon na ko gëm askan wi kii di secrétaire u parti wu Yaya Jammeh Fabakary Diatta moo ko dëgmal la mu xamle mooy ne seen mbëbët moo di Yaya dellu si si réewum Gambie si na mu gënee dal ak it si dignité soriwu sa nag société civile ba gis ne su fekkee ku nekk si ñaari partie yi gis na boppam ca boobule accord dañu leen war ba tax na ndax nguur ga jamono ji am na lu muy toppee Yaya Jammeh loolu la ñuy laaj tribunal d'instance bu Louga moo doon atte coowal bigamie talaata gi ñu weesu waa ji sant ka te fësaluñu turam mooy topp ñaareelam ci yoon bu nu sukkandikoo ci source ya ñu sa am kam yi dafa porté plainte soxnaam di xamle ni da ko war a dem sëy ak keneen te nekk si buum muy xamle ni toll na si ñaari at ba mu ko takkee léegi mu dëkkal ko ca kër doomam ca village yu Décolé commune bu Géej Ardo benn bés mu ñaan ko ni dafa bëgg a dem ca yeen Jolof commune bu Boulal ca département wu Linguère ndax xewu famille bu fa amoon ci la ko waajalee ba noppi bàyyi ko mu dem niki noonu gisatu ko déggatu ko ba tax na fulaalu la la ñu diggee woon woon ko ngir wax ko mu ñibbisi waaye jotu ko mu jaaxle loola bi mu yëgee ni takk nañ ko teg si yaayam dasa ànd li mu bëgg mooy mu dellu këram ndax fasewu ko procureur de la république dafa jébbal li ngay saytu brigade de gendarmerie bu kokki mi gën a xarañ ci côté mi gën a xarañ ci secteur u décollé niki noonu la ñu sa ubbee ab l'enquête takk der yu commandant jàlloo daal dinañuy déglu ka mu delluwaat ca la mu waxoon déglu ko waaye dafa waat am ne xamul uh, waa ji uh, te musul uh, sëyëg moom si la takk der ya demee ca décollé ngir laajte dëkkandoo ya ba mu demee naka ñu sa ëpp dañoo dëggal ni soxnaam la ba wane néeg ba mu ba mu moomoon aw ba sax wax na ni soxna sa wujjëm la ndax doom ba muy nàmpal sax moom la ñu ko tuddee jur wu góoru ndaw sa itam dëggal na lu ni mel tey biral ni moo takkoon sëy ba takk der ya ba ñu noppee ca l'enquête ba dañoo jébbalaat dossier yi tribunal d'instance bu Louga tribunal ba àdduna si coowal Dieyna Baldé bi dox digganteem ak copain moom Bril Fight Fo nañu ko dëgmale woon talaata gi ñu weesu moom Dieyna teg nañu si ndoddoom juróom-benni weer yu ànd ak sursis koy toppee di vol collecte illicite de données à caractère personnel boole wu ñu sa nag délit de copie de données informatiques ak tentative d'extorsion de fonds ba ñu biraloon ci njëlbeen sa seen audience ba woon fanweeri fan ci weer wi ñu génn Dieyna itam Abou Ba Biril ma porté woon plainte contre X bi yóbbu woon l'enquêteur yi ba ci Dieyna waxoon na fa ni baal na ak corom bi ci xol bu sedd guy gannaaw ba mu umpalee woon ni lépp lu ko lépp lu ko lalu ca la ko doon dal ci ay ñawteef ba loolu weesoo nag artistes yi ko gàttandoog seen i yoxo ku ci mel ni Baba am di euh, Chérif ak Diop a biral nañu ni pare nañu ngir liggéey ak Dieyna ci kaw ay a nangu ko ndax gis nañu ne bu noppee si loolu ñoom ñëpp daañu ko seet si ngir euh, xool naka la ñuy def ba liggéey ak euh, moom Mbaye Diagne daal fooweewul image am te pare na pour lépp ngir sàmm ko ginnaaw génn photo yooyu ñeeloon clip bu Queen Biz bi mu dippee boyfriend Adamo da leen yàq lu nekk laata clip bi di génn nag joxe woon na fi scénario di wax ni Mbaye Diagne day génn ak Queen ba noppi di leen sosal te ab clip dong la woon ba clip bi génnee dafa defaat vidéo di wax ni yëgoon na ni clip la yemu ca nag Mbaye Diagne la attaqué di ko wax doo mësa del si équipe nationale waajalal sa bopp dem ci club bu arabe yi teyit naan ko jëflante nga ak Queen Biz laata seen clip bi si commentaire boobu ngeen di gis Mbaye Diagne moo say tontu boss des négri di ko menacé naan kan barki la ilaha illallah si man ngay bàyyee àdduna du doo laal waali sekk nga ni ma nit dooma laal maa la gën a dof bul ma maa la gën a dof bul ma tooñ wala ngay wax luy yàq sama der du ma ko sax nangu pour yow benn vidéo boo def si man duma la ko baal foo nekk nag ñu gisee ak sa bakkanu ak sama bakkanu yaay sama soo ma cherché di nga ma gis abul ma tooñ nag laaj ma Cheikh wala Torino ginnaaw ba mu rafetloo ci participation Pape Diouf ca festival ba mu bokkoon leaderu euh, génération consciente bi daf sa àddu di xamle ni du def du rafetlu gestu rakkam bi di Wally Ballago Seck ndax day wane ni la mu bokk ci festival boobulee mbégte la ci artiste sénégalais yépp ak africain dafa dem Allemagne si taxawaayu doomi Sénégal mi ngi gërëm di sant Wally Seck di ko félicité itam muy dëgmal ne ndam li bosam la mi ngi koy ñaanal buntu yu ni mel ubbeekoo côté mbëbëtam mooy mu xàllal yoon wi rakkam yi ni ko magam yi defee bu weesoo waali kii di Sidi Diop Tarba Mbaye Fallou Dieng ak ñeneen message ko di ko ndokkale muy lu yegg lool ci xolam. festival d'essai nag mooy ba ñu gën a farataal ci musique ca réewum Allemagne fanweeri at ak benn la dund ak borom këram ci biir sëy Penda Meng ba mu yëgee ni borom këram bi di Alfousseyni dafa takk ñaareel daf ko rek daal di uh, soodee marmitu diwlin bu tàng la ko sotti loolee nag ko yóbbee ñaari atu yàlla yu muy tëdd doomam El Hadj Malick Sall naka toppeetuñu ko dara gannaaw menace de mort ya papaam ma waxoon ni mi ngi ko koy ah, def gendarmerie nationale teg na loxo def katu ñaawteef ya duggoon ca campement wu complexe agrotouristique bu Daaru Ndooy jël fab koppar ba noppi faat fa benn nit guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jàpp fan fanweeri fan ci weer wi ñu génn la ñu amaloon a mbir ma ba ñu fay dugg dañoo ngànnaayu woon ba fee attaqué ka fa moom a tëddee jabaram ci kanamam daw yóbbaale juróom benn junni ak yére ak ay yére dëkkandoo ya leen wàllu si woon dañu leen toroxal dóor kenn sa ñoom bal ba ñu ko yóbbu loppitaalu l'hôpital na la ñàkk bakkanam ka ñu njëkk a teg loxo si campement bi lay liggéeyee teg si fukki nit ak benn yu sa bokkoon ginnaaw vigile bi toll ci fukki at ak juróom-ñaar di wuyoo ci turu Pathé Sow teg nañu loxo amee d'enfance su borom complexe bi moom Pathé moo ubbil buntu yi waayam ya laata Umar Sarr mi borom kër gi jàppee woon a di leen gën a wan yoon wi Pathé moo leen xamal ni njaboot Pathé moo leen xamal ni njaatigéem dafa denc maletoo xaalis mu teek la mu foogoon foofu la ay document doo nga fa nekk ba ñu bëggee sàll jox leen la ñu koy laaj Mouhamed dafa Mouhamed ka dafa sàkk soxnaam si si kanamam moom Mouhamed ñu ngi ko jàppandoo ak Abdourahmane ka te laajoon nañu ko fii fi décembre 2020 ñeel station Eydon bu Daaru Ndooy ba ñu dajji woon aliba ab jàngalekat la bu dëkk ca Kër Massar anakar ak xol bu fees lay nettalee ni ko ndox mi tëjee ko waa këram lu tollook ñaar fukki fan ak ñeent muy xamle ni ginnaaw taw bi fi amoon fukki fan ak ñeent ci weeru août la ndox mi wër këram ga yépp bi taw bi arrêté si la ñu gis ne mënatuñoo génn si la waa kër ga yépp yéegee ca étage ba ngir dëkk fa mama li nee na moom rek moo mën a génn doxi soxlaay njaboot gi ndax fi leen ndox mi yem ca foofu la yaayam mu nga fa soxnaam doomam bu jigéen jabaru rakkam ak magam bu jigéen xol ba di métti lool saa yu leen di xoolo ñuy dund lu ni mel te mënu sa dara saa su ne muy posé wu ay question xëy na su yoroon wala dooleema sori mu génne leen ca ndax bi leen mbir tax na seen nekki ne neexatul ñëppay gaaw a mer xuloo guddeek bëccëg si lu ko jar ak lu ko jarul ñëpp a jaxasoo waxtaan wi sax demeetul noonu te yàggaayu fa ñu nekk mënuñu ko faa génne moo ko waral te a saa su ne moo ngi ragal bâtiment bi daanu si seen kaw ndax ndox mi wëree yaayam ci ndox mi dañuy wotanteeg ñi nekk ci biti téléphone saa yu waree génn kayit lay jël bind si la ñu soxla yépp way laa su wëññeekoo woo leen laaj leen lu ñu soxla mamaali nee na woo nañu sapeur waaye ba léegi si ñëwuñu te bu guddi jotee dañuy dégg defkatu ñaawteef fii dugg si ndox mi di feey ngir dem sàcc ci kër ya seeni borom a génn ndax ndox mi lépp lu fay tele wala matériel dañu koy yóbbu ba tax na ñoom daal jamono ji dañu tiit mbir mu doy waar lool te bëriwul lu ñu ko koy gis moo am ci page yu Ndella Madior Diouf ñaari fan a ngi nii daal askan wi di teg seen i gët si ay image yu desee teggi ne ñeel Ndella mi fi sànni woon kartam a ngir toog si bopp nguuru Sénégal moom Ndella Madior dañoo piraté compte Facebook am di si dugal ay photo yu doy waar bi léegi ñetti fan ci weer wi ñu nekk ba léegi ay vidéo directam kenn mënatu see jot si ab vidéo bu mu def biral ko ci plateforme américaine mu ngi ciy xam ne ni dañoo piraté boobu les page am bonjour comment ça va et comment va la santé kenn umpalewul ne Aziz Ndiaye mooy borom moom woykat bi nag ne woon na si ay jafe-jafe ba ñu gëjoon koo dégg gañ koo gis itam si sutura roi du mbalax Youssou Ndour taxaw na ko ba yàlla muccal ko ca ba mu ca noppee dafa def vidéo biral ko ci réseaux sociaux yi di gërëm Youssou di ko sant ak it kii di ngoone Ndour moom Aziz nee na la Youssou def ci ab geste daf ko touché lool yegg lool ci xolam ba ba tax na mu ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko taxawu njabootam ak ay waajuram Serigne ngay wéyal la fi bàyyam Cheikh Béthio Thioune daan def euh, laata muy génn àddina saay bu màggal la jotee ni mu ko defee at yi ñu weesu Serigne Saliou Thioune doxantooti na ba Koufa euh, ca réewum Mauritanie juróom-ñetti téeméeri kilomètre euh, ba mbas mi gàllankooru ko benn yoon ndax moom Serigne Saliou moo demal boppam jënd ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer si lu ñu xamal ni des na ay nag yu des yu mu war a jënd mu nekkoon animatrice ca TFM laata boobu sax mu fi fi ay mëninam faamatul sëy baa ko na ba ñu gëjoon koo gis lool nekkatul ci buum nag maanaam amatul borom kër boobaak léegi nag mi ngi biral boppam ci réseaux sociaux yi ci ay photo ki euh, vidéo yu taaru lool loolu mu ñuy euh, baaxee si ab vidéo bu mu def baaxee ko askan wi ci réseaux sociaux yi Mbathio Ndiaye mi ngi siy fësal borom këram ak salon bu yaañ bile ak it mbégte malalu sa seen jotaay boobule ndam ak mbëggeel daal la ñu gis ne moom Mbathio ma ngi sa toog lépp di si donkaasi gi di ko savouré rek wuyu Wally boobu nga xam ne ni rek ñoom ñaar kenn umpale wula seen diggante. Cheikh Diaby daal dinay s TV gannaaw poste rédacteur en dinay génnaat ci 2 joxe na lettre de démission wam ba nga xamee ni Ah, fa mu féete woon di rédacteur en chef la ñu dindee teg fa coordination wu ñeenti nit kayit boobu ngeen di gis mooy firnde ni moom Cheikh jógee na foofule ca 2STV. Balla Gaye 2 ak Bombardier dañu war a dajewaat ngir waxtaanee seen ñaareelu combat ba ñu dëgmal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ginnaaw làmb ba dox seen diggante Bombardier sol na dàllam jaale ji Balla Gaye 2 si génn paat dina bàyyam bii di Double Less nga xam ne jotul woon seetaan ay làmbi Double Less koy waxal Balla nag ma ngay rafetlu geste Bombardier bi di ko gërëm si teewaayam moom Bombardier nag nee na lu ni mel rek la mën a ndax ba magam Pape Dia génne àddina Balla bokkoon na ca ña fa teewoon doon ko dëfal góor gi si Dieng lay mbëbëtam jamono ji mooy jeexal carrière internationale am gaynde yi daal dañoo gis ne seen bëgg-bëgg dafa wàññeeku ginnaaw ba ñu leen éliminé ci demi-finale ba doxoon a seen diggante Côte d'Ivoire a di say jëlee médaille bronze na woon atum 2017 si loolu la sukkandiku daal di bëral si réseaux sociaux yi mbetteel ga mu am tey wax ni day waaj a bàyyi donte nekkaat na meilleur marqueur afro basket ak 120 points yamu ca def si Tafa Savané ancien basketteur doom si Landinga si poste ba mu def. di ko wax mu fàtte waxu bàyyi ya muy uh, wax te koy encouragé si yeneen jongante yi ñëw mu delloo ko bataaxal di ko xamal ni rek équipe nationale dafa metti mbokk yi lii lañ leen andiloon tey ci uh, buzz de la semaine ni ñu koy defee samedi bu jot dama fay jaaree rek gërëm équipe technique bi uh, junior el maestro waaye gërëm sant ñi nga xamante ni nii rek ñoo fare woon ci caméra bi Lamine si ngeen gën ko xam ci boss si ak kinne si jigéen ju mën ma fa jógee nag te gërëm ma ki ma defal ni Rems Beauty daañu leen toppalaat xibaar yi ci li ci gën a fës ci Dakar Buzz jaa ngeen jëf